ñetti fan la ñu namoon ngir jelloo ko njukkal ki nga xamante ne nag moom moo fi nekkoon secrétaire général bu parti socialiste Ousmane Tanor Dieng ñu gis ni ci village nataalam boobu ni ngéñeen la ñu dooree mbir mi nag nekkoon lu nga xamante ne ni lu mu mérité la waaw yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana xaritam yi am di jàmm yi délégation bu am solo bàyyee ko ci parti socialiste ak ñenn ñi bokk ci haut conseil collectivité territoriale ba mu jiite woon te léegi ki nga xam ne mooy bàjjan tante umpaañ Aminata Mbengue Ndiaye nekk fa faaw ñu wax ko day ne nii lu mu am jox na ko ne it bu ñuy wax CVM duñ fi jógee Ousmane Tanor Dieng dafay mujjee doon rek nit koo xamante ne ni dimension fii mi kenn mënu ko nattableeti ndax génération bu nekk war naa mën a gëstu ci moom mhm. figure emblématique bu ñu ay tandikul mën na ko doon ci langue politique bi waaw loolu a Mbengue Ndiaye wax yéen ñi may déglu ànd ngeen ceen déet xayma leen ci wàllu politique ni mu doxalee conviction fu mu ko mujjee ndax ginnaaw moom Ousmane Tanor bu dee ci politique rek lañ ko teg fañ ko doon xaaree fëlëfël ngeen foog ne taylawul parti socialiste nañu xalaatandoo bu ko defee dinañ xam fu ñu war a mën a méngale ki nga xamante ne nii mooy doomu ngeneen boobu te ña teewoon ci biir mën nañ ca ràññee ndaamal kajoor génn na borom Thiès Idrissa Seck boroom moo xam lépp xam-xam it ci langue politique bi nee na kenn mënu ko ci alxuraan sax dalay jox ay xadis boroom bàq ak màq El Hadji Malick Gakou di ki nga xamante ne moom moo nekk ci grand parti waaw mooy borom géejawaay déedéet grand parti nekk géejawaay ki nga xamante ne boobu ba tey ma ngay réfléchir ndax day demal boppam wala rek day toj nen samp boppam li ci mën a am mooy teewoon na ci bés ba ñoom ñëpp délégation APR bi Mor Ngom moo ko jiite woon dimanche ci parti socialiste balaa may fàtte sax ma wax ni foofu ca ngeneen jël nañu nag ab ndigal gu nga xamante ne dañ cee sàkku ci liggéey yëpp yi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng dooroon na ko daal nañ ko daal di jeexal ci ni mu gën a gaawee nag ndigal moo jib te ndigal nag jëfe lycée bi nga xamante ne moo fa nekk ca commune ba léegi Ousmane Tanor Dieng ko duppee loolu délibération municipale a joxe ndigal gu ñu mel waaw wax naa mën a li ma leen di wax rek nit koo xam ne def na fi lu bari ci wàllu politique ba parti socialiste ndax loolu rek am ngeen ani bokk moomeel yi lan la liggéey foofu ca dëkk bi nga xam ne moom lay ndamoo tey fa lañ ko delloo njukkal foofu lañ ko denc ba tey laaj waa ngi noonu samp na dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février gi ñu nekk Idrissa Seck ak Macky Sall daanaka nag ëtt yéenekaay yépp ñoom la ñu xëyee daal di xamle mhm. dilu politique la complot la lan moo waral ba tey Idi waxul ba mu neex ko daal di génn di reetaan na boole koy siiñ bu defoon demblan mu dàkkati moom Macky Sall jàpp leen bu doon daraage daraage charme charme ba ca ginnaaw ga ay reetaan ak xaqataay taxaw di fàttaliku démb fa daa di xew waa ñi kan la ñu yab cay politique lii moo tax dëgg dëgg dëgg def ndànk daa di war moom jiitu réew bi Macky Sall ma nga fa woon naan waaw maa ngi fàttaliku Ousmane Tanor Dieng Abdoulaye Wade ku ko joxoon estime la te lu mu wax nag jël sa sekk naan li may wax sax ki nga xamante ne mooy sama mag ki may digal sa Seck jot na nag muy laaj buy samp nañu leeral loolu askan wi ndax mbir mi ab di la nekk ci suuf la ca mën wax daal di def ndànk nit mën ngaa farak ku la neex ànd ak ku la neex sànnante xeer yi nañ ciy def ndànk ndax ndaw ñi ñooy faral di gaañ seen moromu ndaw ci langu politique bi ci ginnaaw ga ñoom mag ñooñu bu ñu fa jógee nag daal di nekk ci jàmm bu ñu tasee di nuyante di jaalante mun sax ñàkk nag ndax kenn ku nekk nag sa moroom bu dëddoo war nga kaa jaale ji waaye saafonte fee mu mel ni musuñoo waxante lu ñaaw après ñu ne loolooy politique ndax politique boobu la ñu namm fii suñu réew bi di Sénégal la ci mën a am daal mooy ba laaj buy samp la ñun ndaw ñi ñu ñoo ci war a xool ba tey ña ngay sax samp laaj naan lan moo tax moom Idrissa Seck génnul wax dëkk bi nga xam ne insécurité bi gisoon nañ ko fi ay xale yu ñuy faat viol yu tulleel màlle nit ñi nga xamante ne dematuñu dikkuñu ñu àddu fi wax ci lépp ba ci sax jàpp ji ñu jàpp Guy Marius Sagna du dara lu mu fi wax lu dul moom mi nga xamante ne nee na mooy ñaareelu position bi ci présidentielle bi ginnaaw ga sax nag woon na moom moo jël présidentielle bi dañ ko jaay doole njiiti réew bee def ko neex moom njiiti réew boobu samp boppam duppee expression doy na waar ndax jotul tey ñu bàyyi xel li nga xamante ne mooy suñu politique gu réew te sax nag bu ñu daal di fàttalikoo ci dimanche bi maanaam démb waxtaan wi ak mon cher aîné Idrissa Seck tey Idi Ndamal Kajoor yow dafa mel ni da ngaa fàtte 2006 bi nga xamante ne ni moo la teree doon ki fi wutu Abdoulaye Wade jamono ji nga xamante ne dalaa tëjoon ñëpp merle la nga daal di xëy wuyu ji ko def fa 12 heures d'horloge te naan ci ndigal laa demee waa kon xanaa Macky Sall bu la nuyoo ngeen di piisante ay bët ci ndigal ngeen ko defee la ca mën a am mooy nit ñi respecté mbaa ngeen xam fa ñu ne newuñu ngeen defante newuñu ngeen i ci potonte mais boo leen taxawee da ngeen a constant conséquent xale yi xam fa ñu féetee saytukat bu mag bi dafa wax ni wax ma ñan ñooy say ndawu tey ma wax la lan mooy sa réew ëllëg waaw mën naa ne faawit ngeen bàyyi ñoo xel bu baax a baax a baax te sax nag bu ñu gisee njiiti réew bi Macky Sall la nga xamante ne def na ko foofu nga xamante ne ni mooy parti socialiste googu kenn mënul dem te du tàggoo du sama umpaañ Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam wala mu nekk ki nga xamante ne nii nag mooy ministre de la pêche gu bees tàkk te xew di Aliou Ndoye ku ko di dox ci ndigalam di bàyyi ci ay tere borom ne ni tey jii Sénégal da ko bëgg a jëmale ca kanam émergence bi nga xamante ne nii ci biir parti socialiste daal da nga koo tong-tong ginnaaw ba nga jógee ci AFP ca bés ba sax nag am na ñi nga xamante ne ñu ñëwuñu waaw keñ nag looloo jara wax moom Bamba Fall menn moom lañ fa gis ca ñu ci bokkoon ak ñeneen ña lu ko mooy nag ñaar ñi nga xamante ne nii biir parti socialiste kenn du leen wax bàyyi leen ginnaaw Khalifa Babacar Sall ak ki nga xamante ne mooy doomu Jean Paul Diaz bi Barthélémy Diaz Diaz borom Vatican waa lan moo tax sax yëgaluñu leen ko koo joxul nag invitation yëgaloo ko mënut a ñëw wala su ñëwee lu mu fa toj moo tooñ waaw looloo tax nag Barthélemy Diaz daal di ñëw fekk si ca la may wax ni bëgguñu woon ñëw ndax benn bu ci jiitu invité wuñu ba ca toppit mooy waroon nañoo ñëw sax ndax parti socialiste waruñu caa xaar invitation waaye dañuy bañ a ñëw lu fa yàq ñu ne ñoo ko yàq débordement am ñu jokkeen ñu baaraam moo waral daal ñu ne tekk fa ñu toog bu ñu delloo ginnaaw Ousmane Tanor Dieng laata muy génn àddina ñu daal di juboowaat dellu doon benn ngir yëkkati héritage bi nga xamante ne nii kii di Senghor bàyyi woon na ko fi wala Abdou Diouf waaye dafa mel ni mbir mi daa tàbbi ci noppi ku tëx ndax ginnaaw parti démocratique sénégalais parti bii di LD nañu jàpp ni moom parti socialiste moo fi menn parti bu nga xam ne dafa am école parti mennum parti bi nga xamante ne dañ koy structuré mennum it parti bu nga xamante ne am na ay sage kon lan moo waral kilifa yeneen ci parti di mag ñi daal di tekkaaral ci diggante ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir parti socialiste ba ku nekk wutali fa nga dem ndax looloo tax ñu naan ni bëgg poste rek warulaa mën a tax nga tayle gile parti nga xamante ne buñ ci delloo ginnaaw ci atu 1960 ba 2000 bi ñu toll nekk na parti bu nga xamante ne nii ñaari président jóge na fa moo xam Senghor ba ci Abdou Diouf maanaam parti socialiste daal booy seet ba ci biir Sénégal en miniature la ndax nappkat bi baykat bi rëbbkat bi intellectuel bi ki na ci culture aada ak cosaan ci wàllub diine ñu bëri ñu ngi ci biir parti wi nga xamante ne tey jii dañoo gis dara nag waru ko lu dul ay position ak poste de responsabilité ci mujjantal ba sax da ngay laaj ndax lii jar na ko ndax politique lii lañ ci jàngoon ci jamono ji nga xamante ne nee nañu politique du dara lu dul l'art de gérer la cité ndax cité gi ñu mel la position yi bari nañ fi toog ba mu neex la xëy daal ne Dakar da koy soppi jox ko posture boppam nañ leen dem ba ci kanam li ci kanam rawli ba